saison bi tijji na am ay rumeurs yu commencé daw ci écurie bi ngeen bokk mu écurie Grand Yoff mu bëri ay problèmes yoo xamante ni déjà nit ñi ñu ngi commencé di ci wax démission vague de démission sax la euh, ku ci mel ni T-Max ku ci mel ni Fourière. Mhm. ku ci mel ni Pablo. Mhm. mbër yooyu déjà commencé nañoo démissionné euh, te nga nekk ci biir écurie bi écho yi naka la demee. voilà foofu moom foofu dafay am taxaw lu tuuti rek parce que. Euh, lu yëngu lu ne lu ko yëngale ko ëpp doole Grand mbooloo du école écurie la comme ni ñu ko waxee du ñàkk nag ay njiit mais lu ñu bokk la loxo yi bëri nañ ci lool ku nekk ak say façon euh, mbër yi nag kenn ku ci nekk comme li ma wax léegi léegi rek am na li la fa neex ba nga nekkoon fa mais tey ñi fa bëgg génn am na lu leen fa naqari ba ñu bëgg faa génnee euh, coow loolu nag comme li may dégg dégg naa sax ay yenn mbër yu naan combat bi Zarko jël moo tax ñu bëgg génn. man sax dama koy tere naan képp ku bëgg génn na nga génn sans autant nga ne Zarko moo tax ma bëggoon génn man bëgguma sax koy wax loolu c'est parce que nit ki nit day responsable. combat Zarko bi. Ada bëri na si mbër yu ko nanguwul man mi si départ bi sax nanguwuma ko. fan ngeen ko teg. parce que euh, man dama sama analyse. Ah. mooy Zarko bu daanoo six fois. Ada Fass daan six fois si la ñu war a bëree. ci sa analyse. sama analyse bu fekkee Zarko dafa daanu six fois si combat am. Hmm. Ada Fass daan six fois. kii day daanu six fois kii daan six fois loolu moo leen di war a a boole te su boobaa sax Zarko ba léegi la ñuy neexal pour mu bëreeg moom hmm. waaw parce que aada. kon dafa rawee aada lu bari. xam nga làmb du ëmb day xëy rek wasin hmm. mais tey bu jaaroon fi mu war a jaar sax aada man sax warut a bëreeg man aada man sax warut a bëreeg man parce que tey ku ondul ondul la fu ba mu ko mettre pré da ko mettre en pression rek mu génn mu daanaka mu joxe li mu am dem ñibbi hmm. ku ondul la fu daan nga daan kulifay mais lamb xel warul nangu sax nga bëreeg Zarko mi jógee si baa ma ñoon daan guy gi dem si baa ma ñoon kooku xel waru ko nangu xanaa yow mi may déglu sax war ngaa xam ne loolu xel nangu ko imagine toi yàlla bu ko yàlla def yàlla na Zarko am dam si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais bu yàlla dogaloon bu yàlla dogaloon Ada Fass ndax làmb la rek reenu ñaami rek kenn xamul fu muy demee Ada bu daanoon Zarko fukki at dootuñu am mbër bu mbër bu bëreeg Ada Fass fukki at 10 ans duñ ko am fan lañ koy jëlee kan fa fan lañ koy jëlee parce que Zarko ku nangu ak ku nanguwul Zarko mooy suñu tête loolu dafa war a mbër bi nga xamante ne c'est international hmm. comme man ni ma nekk international Zarko léegi moom c'est international est-ce que comprendre nga léegi bu yàlla dogalee Ada Fass daan Zarko Grand Yoff mbooloo dix ans mënuñoo am mbër bu bëri ak Ada koy jëlee mais yàlla bu ko yàlla def parce que combat risque mënut a weesu combat Zarko Ada Fass bu dee dëgg rek la nit ñi bëgg dégg. kon combat boobu ci lan ci lan la ko jëlee ci xaalis a tax mu jël ko wala lan. man de ma part personnel dama jàpp ne xaalis moo tax mu jël ko parce que du palmarès palmarès boo leew Arafas defoo li tax mu war a bëri ak Zarko. Zarko aussi toogul toogaay bu yàgg boo xamante ni. Euh, Zarko moment bi mu tolloon defoon nekkoon na ampleur ba nga xamante ne moom mooy bañ guy gi mooy guy gi du ko bañ mooy bañ saa kees saa kees bañ sax parce que même bu fekkee ñoo ñoo ko ëpp ndam. bu fekkee sax ñoo ñoo ko gënoon nekk actualité ci jamono yee passé mais fi làmb ji tolloon ci jamono jooju noonu Zarko moo gënoon nekk ampleur parce que làmb coow dong la. làmb coow kese la bu weesoo coow amul leneen ñenn ñi ñàkk coow leen fi bàyyi ñenn ñi coow rek leen yóbbu kon làmb coow la kon démission yi daal loolu ci la bokk. démission yi loolu bokk na si euh, ñenn si mbëri na dañuy démission dañuy démissionné hmm. waaw am na si nag ñoo xam ne ñoom dañ ne staff bi si boppam. yemale ñu mbëri sa parce que 3 litres la ñu la la la la ñu jiital. waaw xëy na amuñu si lu ñu leen neex 100 pour cent mais tey buñ ñu sañoon ñoo ñoo nekk mbër yu mag yi. Hmm. mooy kan ak kan. muy euh, Nani Fall am na combat mook Papa Boy Djiné yàlla na ko yàlla may ndam. Hmm. Zarko ak Mobile 2. ñett ñooñu la ñu jiital. la jiital xëy na tey bu demee ni mu demee sax dafa am léegi nag man li ma si mën a sànni comme li ma mën a leeral ci loolu pour mu leer que ni mooy man amul benn booy fi mu doon buy démissionné mën na la bul démissionné ndax man mii sax bul bu bu mu la bett bu ne jóge na Grand mbooloo. déedéet waay waaw non bu mu la bu mu bett kenn Saliou Mané jóge na Grand Yoff mbooloo. loolu bu mu bett kenn parce que man ba ma koy bëgg boobu coow li amul man ba may bëgg a génn Grand Yoff mbooloo. coow li amul dëgg nag. nii nii su ma ko defoon wala su ma coowee ni ñoom dan naan kon coow loolu moom ma yóbbu te man dama responsable ci may def man ci li ma gis sama bopp rek ci laay toog ba may xalaat ak di calculer di gis li may gis boobu ñoom ñii coow ñëpp kenn gis ci dara. mais écrit bi lan moo la ci naqari Saliou en tant que doomu Grand Yoff ba nga bëgg génn. waaw xam nga génnu ma nag a préciser mu leer génnu ma Grand Yoff mais Grand en tant que maanaam euh, en tant liggéeyukaay kese dañ fay daje. comprendre nga su may génn Grand Yoff mbooloo laay génn grand écrit Grand Yoff mbooloo laay génn mais du ma génn Grand Yoff parce que nit ñi des fois nit ñi ni ak nit ñuy déggee day a day xaw a day xaw wute mm-hmm. est comprendre nga li ma ci neexul ñoom am na si yoo xam ne ñoom jot nañ ko laal parce que man am na lu ma si seen loo xamante ni dëgg-dëgg daal loolu rek lay nduru mm. loolu kese lay nduru ah parce que nag tey gis naa si ñi si coow ñii ñëpp kenn ku ci nekk sa intérêt bopp rek ngay coow yàlla xam na loolu mm. te écrit waa mbëri mbë même nekk ci kaw di coow kenn ku ci nekk kuñ ci jiitaloon da ngay noppi mais nag yàlla moo dogal lii muy dogal que ni Zarko ak lu mënti xew suñ borom moo ko dimbalee lii mu am xëy na nag moom du koy teg si yoon moom Zarko du koy teg si yoon ah non non moom du koy teg si yoon parce que man nee naa ko yow mbër sa jikko moom ma neexul benn jikko rek am bu ma neex muy que ni moom bu ngeen génnee outside Zarko doomu Grand moo ko gënal beneen doom mu dëkk loolu jikkoom la si sarko bu génnee Grand yof beneen doomu Grand Yoff bu mu fekk si beneen réew yow lay gën a dooleel que keneen ku dul yow. léegi nag bu ngeen di dund ensemble nag di nga gis moom ay critères yoo xamante ne benn du la ci neex. Hmm. kon daal danga jàpp ne bokk na ci liy génne nit ñi wala di leen frustré loo mooy doxalinu Zarko. man Zarko moom boo man deful lu may gén man deful lu ma génnee Grand Yoff da di ñenn ñi nag ñoom ñu ne def na li tax ñoom ñu war a génne Grand Yoff man deful dara lu ma génnee Grand parce que mënul def sax lu ma génne ndax man bu ma ñëw Grand Yoff maa ko jiitu Grand Yoff mbooloo. Hmm. waaw ko jiitu Grand mbooloo. Zarko ba may nekk grand mbooloo boobu moom mu ngi parti mu ngi kon kooku du moom moo may fekk fi ma fi ma fi ma ko jiitu mu di ma fa génnee loolu yanuwul maanaa dëgg la loolu man man loolu du raison sax pour nit di ko wax ay Zarko moo tax ma génn écrit bi non non yow da ngay génn loolu na nekk sa responsable bopp nga xam ne sa sa destination bopp la c'est-à-dire bul ci laax kenn man ba may bëgg a génn boobu coow li amul laax mais fi mu toll laa gën a bëgg a génn tey tey laa gën a bëgg génn grand mbooloo. mbaa pare nga sa caution kuy génn da waaw côté boobu xam man comme man dafa man bindu benn lettre d'émission te lii ma lax nii c'est la première fois ma yàbbi ko wax ko mu leer parce que yow sama nawle nga et puis sama nit nga amul lenn lu may nëbboo ak yow. waaw ndax yor naa sa numéro bu yàgg. yor nga sama numéro boo xam ne <laughs> numéro bi lan 050 xaw ma lan. numéro yooyu ma xam à 15 ans si ginnaaw ñooñu njëkk a yor numéro boobu noonu mais numéro bi. bii ay ñoom ose ñoo ko yor yooyu ay ay 127 69 31. waaw am ah, moom niveau modèle la yooyu la yor quoi. xam nga donc mu ngi noonu. léegi ma bëgg la xam ne la dama la bëgg expliquer benn affaire bu leer ñi ñi njëkk a bëgg a génn grand mbooloo ñi coow ñëpp ba ma njëkk ba génn grand wallaay boobu bëgguñu génn grand mbooloo boobu juste aw ma expérience ci affaire yi. xaw ma su may génn nu may génne xaw ma suma ma génnee sax fu ma jëm mais bëgg rek laa amoon bëgg génn parce que dem naa ba xam ne li fi nekk as tuuti man maa imposé amal ko sama bopp. Mhm. mais aw ma du benn jàppale boo xamante ni gis naa ni moo ma indi fii ma nekk. kon su ma la déggee léegi daal boo génnee xam nga fi nga jëm. waa nii nii nii. suma ma génnee xam naa fu ma jëm bu baax. mbër yow da nga li ngay togg ba mu ñor. nga bëgg non du kaaru dama ne la man ba ma bëggee génne yàgg na. mais jamono ji aw ma expérience bu ma génnee fan laa jëm. ak naka laa fay génnee. ak est waxtaan naa seeg sama secteur. est que waxtaan naa seeg samay waa koñ ñu ma nekkal sa parce que nag làmb euh, du du loo bëgg def rek def ko. da nga am ay kilifa di leen tàggu. Mm-hmm. dafa am loo xam ne mooy sa base sa base doo réeroog ñoom si dara. Mm-hmm. kon jamono naa rek mais li ma bëggoon gars yi bëgguñu woon ndax gisuñu woon li ma gis. mais fi réew mi toll. fi nii. ne man je crois bien que nekk fa moom day def effet quoi. <laughs> <laughs> Euh, kon da ñuy baax fi nga jëm wala da ngay préférer garder ko. non moom fi ma jëm moom bëgguma fa bëgguma fa wax dara parce que comme demaguma fa. te génnaguma ku génnagul mun a wax fi nga jëm. waaw ndax tey su ma ne su ma génnee fii laa jëm rek day mel ni jeexal naa carte gi. te warul mën a warul mën a gaawee noonu mais de l' essentiel que ni mooy man. Mhm. su ma sañoon yàlla xam na ni ren du fa fekk. mais léegi. Euh, te jotawu ma faa kenn nag. Mhm. xuloo ma faa kenn. Zarko tamit taxul ma génn parce que Zarko amul dara lu ñaaw lu ma def li tax ma génn grand foofu it na leer. Mhm. mais man sama jëm bopp sama magum la xam naa li gën ci man xam naa li gënut ci man dama ne man su ma génnoon tey jii. Mhm. ma xam ne génn naa fa jotewu wu ak dara équipe grand mbooloo ñoom ñëpp a baax macha allah mais man su ma génnoon tey damay sant rek. Hmm. waaw su ma génnoon tey grand mbooloo damay sant rek. ak ñaan yàlla bàyyi fa jàmm fekkaat ko su ma déggee ni ngay waxee mooy écurie Grand Yoff dafa bëri ay jàngoro. su ma déggee ni ngay waxee nii boo fa génnee da ngay sant kon écurie ba dafa bëri ay problème yu fa nekk ci côté staff la ci côté mbëri wala ci présidence bi la ban niveau la. waaw côté mbëri sax nag gis nga mbëri. Mhm. Grand Yoff euh, dafa am lu fa nekk loo xam ne dafa am Grand Yoff te amul benn écurie. Hmm. Grand Yoff sën ngay gis mbër bu ci nekk ñaan yàlla tekki moom dong. Hmm? Grand Yoff mbooloo sël ngay gis. Grand Yoff mbooloo li ma la wax nii course man ay du ma du man du ma nekk ma comme lu ma neex rek wax parce que xulu xàq wala kaanu mu ran damay wax dëgg rek même bu fekkee dañ may tër rendi ma loolu la alxuraan wax du dëgg barki yurunti bi Zarko euh, Grand Yoff seulement ngi gis benn loolu nag du jikkoy Zarko foofu it na leer man jikkoy Zarko neexuma de mais lu ci rafet rek mën naa la ko parce que wax mbaaxu nit ki wàññul sa mbaax dara du jikkoy Zarko c'est-à-dire comme par exemple nga nga nga nit ba buggoo sax mu dem loolu du jikkoy Zarko dëng na nag sikk na Zarko gën a sikk si àdduna Zarko Zarko moo sikk sikk ba yow ba doon lim ay sikkam fii ngay fanaan barki Serigne Touba lool man maa la ko wax kii Serigne bi Zarko dina la koj de Zarko barki ah dina la koj ma noq su boobaa ma noq ba waaye su boobaa ma noq ba mu duul laa bu ma kojee ma noq ba mu duul moo gën a sikk si àdduna mais ignoré mbër wala soxoree mbër di jukkoom uh-huh. mais moo gën a sikk nag mais soxoreewul mbër soxoreewul mbër. yaa ngi comprendre. Mm-hmm. mais nag du du du du du du du nit koo xamante ne ku amul sikk la ku bëri sikk mooy ko yàlla xam na loolu. mais ana seen bi. Badara Kebe. waa kooku xam nga président la. parce que mbër yi ñoo ko soisir mm-hmm. mais fi mu ne nii nag boo bëggee dégg-dégg lu nëbbu. Mm-hmm. moom ak euh, staff bi ñu bëri déggoo ñu maanaam bokkuñu ay gis-gis. mbër bëgg a yàq jotaay bi. bënis ah, revanche bi moom moo ko intéressé boo waxut ci revanche bi moom garaaw dama fay jaar sànq fekk xam nga Basiru xool seet si ko xam nga rek moom sama waay la bëre ñu boole woon mais du ñu ay ennemi quoi waaw mais terewul revanche dañ ko war a biisaat te xam nga ne dootuñu bëreet non dañuy bëre de mais mais mais bënis ma ak yow kañ la non amul problème léegi da nga jël sama numéro ok aca mbër àggaleel nga ne président bi ak staff bi président bi ak staff bi déggoo ñu maanaam bokkuñu ay gis-gis mhm. bokkuñu ay bëgg-bëgg bokkuñu ay gis-gis bokkuñu ay bëgg-bëgg. te loolu nag dafa nekk mbir boo xam ne lu xaw a jafe la sax que njiit bu dee dégguwul ak ñi nekk si suufam. Hmm. sa waay dina xaw a jafe dina compliqué tuuti ba pare day gën sax si mbër yi. mais loolu mais nag ku am pas-pas sax parce que nag lu Grand bëgg si toppatoo ak taxaw ba rek ba da koy def foofu dina leer. Hmm. mais ba xam xelam ak xalaatam doy na ñi si suuf loolu tamit xam naa moo jaral lijjanti ndax foofu boo gisee du ma ci sori bu baax a baax. sa parce que ñoom ñoom a gën a xam li fa nekk. du dëgg ñoom xam nañ li fa nekk xam nañ li tax nanguwuñu euh, wala boog euh, xaw bon xam nañ li tax bon mënuñu d'accord ak moom comme li ma koy déggee parce que man communication yi ma fekkee yëpp xam naa ne bokkuñu ay gis yi bokkuñu ay xalaat waaw day yëngu ci politique mais doomu dëkk bi la ku bëgg dëkkam la ku fonk doomu doomu grand ku fonk grand la moom Badara Kebe hmm. nit ku nangoo liggéey la te ku ñàkk ki ñaar la tamit ku am pas-pas euh, Pastef la ku am pas-pas la xam naa Badara Badara Kebe nit ku baax la staff yi tamit noonu la ñu mel. Hmm. mais xëy na ñoo déggoo rek li a laal mais en tout cas hmm. euh, déggoo am. looloo waral démission yi parce que xoolee ñaa combien de leaders ñoo bëgg de ak matul six man ba ma bëggee bàyyi man boo jotew teg lii dara man ba ma bëggee génn grand bi yàgg na dina ne dama koo gën a bëgg ci jamono jiñ tool nii yàlla seede na loolu kon nangu nga ne écurie bi fi mu toll nii caay bu amul ñoor la ah caay bu amul ñoor la waaw caay bi amul ñor mais fañ ko doon fañ doon awale ñor bi daf fat caay bi amul ñor sax dëgg la malgré mais nag fañ doon awale ñor bi sax pour mu ñooru sax dafa fat fi mu ne kon ku guut ñoor sax mënatoo ci dara. no non ñoor sax mënu ci mënu cee dugg ba muy ñooru. <laughs> kon su ma la déggee mbëri nga xam ne ñoo démissionné ñoom équipe bee leen tooñ. mais ñoom bi ñoom ñoom non bon équipe moo leen parce que ñoom xam nga tey. non problème moom zaal saa amee dina am ku tooñ dina am ku ñu tooñ. merci dañoo tooñante kon pour mu leer. dañoo tooñante. ñoom la ñuy coow ci staff Grand Mbolo dëgg la mm-hmm. staff Grand Mbolo kenn ëpp leen xam-xam ay nit ñu am xam-xam ñoo fa nekk mais problème bi mooy jàppale lañu amul jàppale. Mm-hmm. c'est-à-dire mënuñu pousser mbër mais nag ba pare li gën a garaaw mooy amoon nañu ay choix ci ay mbër. Mm-hmm. cest à amoon nañu choix yi ñetti mbër yoo xamante ni comme ñu ko gaa yi waxee laa wax. am nañu choix ci ñetti mbër yoo xamante ne tey xëy na yàlla moo antoogul. mais seen yéene ñooñu la woon pour ñooñu daa dem seen yoon tey man mii laa man man man man man man li ma nekkee ku mu neex ak ku mu naqari di nga ko wax ndax boo ko waxul sa morom wax ko mën na ak daa war a dem loolu moom ñëpp a koy waxal da di kay man maa war a yokk sama góorgóorlu xëy na mais bu dee comme jàpp ci loxo yokk la doole parce que fii ku ñemee dañ laa dee feccu liir bu neexee nday moo téye ci ay mbagam du dëgg donc loolu la ñu xaw a manqué wala boog man manqué naa ko cent pour cent lii man sama mooy principal bi ma a bëgg tax a parce que xëy na su ma nekkoon feneen peut-être fi ma toll nii mën naa ko weesu. Mhm. fii ma nekk peut-être moo ma xaw a nëbb. Mhm. dafa maa nëbb torop te mag ñi may dégg xam nañ li may wax bu baax a baax a baax a baax a baax.